mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi fii ci jumaa ju mag gi ci Touba almahrusa eh, di daairatu muxadamatul xidma bi sëriñ bi dénk jumaa ji ànd kook daairatu rawd rayahin ñu amoon ndigal ñu yeesalaat ndigal li it mooy fas yéene dundal guddik gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci biir jumaa ji ay at ngi nii ñu di ko def ba tey jii Cheikh Mouhamed Mountakha xafisahullah waraa yee salaat ndigal yi ci ñaari mbooloo yooyu ñu war a ànd ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki jul yépp ñëw fii ci jumaa ji dundal fi gàmmu gi ni ko sëriñ bu mag bi radiyallahu daan ko defee ci Ceen Jolof ak ci njaareem ci loolu nag lañuy ñuy wooyee mbokki jul yëpp mbokki taalibe yëpp di leen soññi ngir bàyyi xel guddi gu mag googu nga xam ne sëriñ bu mag bi wax na ci yu bare bari bokk na ci rek Euh, li mu wax ne tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muazimi ci loolu kon ñu ngi woo mbokk jullit yëpp di woo mbokk talib yëpp di leen séenu di leen bàyyi loo xel it barab bi ak li mu laaj ci ay teggiin ak yar saa buñ dëkkee fa yéene ànd ak mbooloo yi koy taxawal ci nam gën a mate ngir li ci nekk ci aw yëpp ñu mën cee bokk jot ñu ngi woo ñëpp di séenu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di leen siyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ñu nekk e, su ngeen gisee jataay bii nag ak kàddu yi nga xam ne sëriñ Mbàkke Abdourahmane jiital na ko ñu nekk fii ci jumaa ji e, xam ngeen ne e, bis bu tedd bi jublu si na ñu am ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ngir dundal gi guddi gàmm fii ci jumaa ji ni ko sëriñ bi daa dundalee ci barab yi nga xam ne moom la ko daa defee moo xam Thiéyène moo xam Njaaréem ak barab yi mu daa nekk yëpp euh, xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma yàgg na koo def waaye ci jamono Sëriñ Sidi Muxtaar la joxe ndigal ne daayira Rawdu Rayaahiin ak Muxaddamatul Xidma nañuy ànd di ko jëmmal ci jumaa ji boobaak léegi nag kenn ku nekk xam na ne gàmm gi rëy na lool te kawe na lool te nit ñi dañuy bàyyi ko fu nekk di ñëw di ko teewe si loolu nag moo tax euh, ñu fas ko yéene def defe nañ ko daa defee waajal ko ci Eh, ni ko sëriñ bi waxee léegi eh, ci sunna ngir màggal ko ci sunna eh, programme bi nag nii lay tëddee xam ngeen ni gàmmu sëriñ bi bu ko daa dundal daf ko daa booleeg alquran ak xasida <coughs> muy fukki kaamil ak ñaar ngir dàkk ci guddi fukk ak ñaar yi ak ñetti kuréel yoo xam ne daf koy daf koy boole ak barsan ji yu su jàngee benn bunt jàng fukki bayit ak ñaar ci jes bu fukk ak ñaar ci muxaddimaat fukk ak ñaar ci muwaxibu Euh, su noppee jàngaat beneen bunt noonu tamit la ko daayira Moukhaddamatoul Khidma fas yéenee euh, def defe lu jiitu loolu nag am na ay waxtaan yuy am laata loolu ginnaaw gee rek incha allah ci 9h euh, njàng bi dana tàmbali suñ Cheikh Gueye Mayib dana fi jàng ak suñ Boole Mbay barkeelu ak kuréelu Moukhaddamatoul Khidma bu ndaw bi bu 23h jotee nag incha allah ci lañ war a tàmbali barsan bi ak kuréel yi ba bët set. 23h bu jotee incha allah ci la ñu war a def waxtaanu diine woo xam ne ñu ngi war a waxtaan ci euh, yonente bi ak ay saxaabaam sëriñ euh, Seexuna Abdul Wadood moo koy def. zéro heure muy wi nag incha allah ci la njàng mi war a tàmbali ci njiital sëriñ Ahmad Badiyu moom Cheikh Amadul faadal ak sëriñ bu so ak sëriñ Abibullah Jatara ak kuréel yi Muxaddamatul Xidma yi nga xam ne mooy ñetti kuréel yi ñu ànd noonu ba bët set incha allah. Euh, niki noonu tamit xam ngeen ne at yëpp Cheikh Mahmadul Muntaxa daana ñëw. ñaanal ñu yeewee ñu incha allah loolu it ñu ngi koy yaakaaraat incha allah te ñaan suñu borom defal ko kattan ak wér. kon su ko defee nag ñu ngi laabiire suñu bokk yëpp suñu bokki taalibe yëpp ñu bàyyi xel gàmm googu e, ñëw ci penc mi waaye ñu ñëwee ci ak ay teggiin ak ab yar ak worma ji nga xam ne penc mi laaj na ko ñi nga xam ne dañuy indi ay ñam ñu bàyyi xel. ñam yi buñ koy indi ñu teg ko ci loxol ñi koy seddale ngir ñu bañ kenn ku nekk di seddale sa bopp moo xam lu ñu naan la moo xam lu ñu lekk ak lu ñu dem ñu moytu jaxasoo bi bu baax a baax te kenn ku nekk nekk ci dara ci loo xam ne day dundal guddi gi moo xam da ngay jàng alquran wala xasida wala ngay jàng alquran wala ngay yor sa kurus di wértu bu defee góor ñi ñëpp nañ nekk ci penku bi jigéen ñëpp nañ nekk ci soow bi tañ moytu jaxasoo bi ñu moytu jaxasoo bi baax a baax loolu mooy tax tiyaaba jiñ digle ci gàmm ñu mën koo am kon ñu ngi sant ñëpp di soññ ñëpp di soññ mbokki jullit yëpp ñu bàyyi ko xel te eh, li nga xam ne moo ci war ci ci ni ko sëriñ bi diglee fa kullu man an anfaqa fi mawlidihi l musharrafi maalan bi di sarafi walaw bi xadri dirhami képp koo xam ne jël nga sa alal eh, dépassé ko ci guddi gàmmu mel nga ne ku teewee xare badar ak xare uhud te loolu mu ne su ko am Euh, lu faat la kon nag occasion bu mel nii kon war naa tax képp kuy taalibe wala kuy jullit nga bàyyi xel loolu kon su ko defee ñu ngi séentu ñëpp di ñaan suñu borom ñu àggale ñu ci ñu def ko ci jàmm barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu